tàmbale woon nañ ko léeg-léeg tereem dana dem ba am ñaar fukki fan léeg-léeg itam mu dem ba am weer boo ko dégluwaatee ci aljawharun nafis teqale woon nañ ko foo teqale bu gën a yaatu fii wa itam xataxandeem dog na damu nu fasaay deret ci wasin wa in kaana ak doonte nekkoon na qurbal wilaade di jege jur ga iru tasalat mu sangu wa salat te mu julli deret ci wasin mooy deret ji nga xam ne am dooma ko waral kooku nag fekke daa am doom mu daal jeex fa saa sa moom deret ja baax na kon daal di sangu te jullee ko war a ko def yëpp wa intama daan dem sax na bihaa ci moom ak damu deret ja jala sat kon mu toog sittiina juróom benn fukk lay latan ci ay guddi tum maaxata sala toog mu sangu wakaanat te mu nekk mustahaadatan di ko amee deret jàngoro xam ne tusal lii dana julli wata soomu te muy woor wattu woo taw te day fi laal ko day fi laal ko jooju mooy jotee jëkkëram la jublu daa wax ne bu fekkee jigéen ji am doom deret jooju génn ci moom dafa yooyu rek ak moom di yooyu rek jeexut kon na xam ne gën jaa yàgg mooy juróom-benn fukki fan soo amee juróom-benn fukki fan te deret ji jeexut da jàpp ne kon jàngoro la na daal dem sangu ca ngaayul farata di jullee ko woor te bu neexee jëkkëram mu jotee moom baabu taxaara ci maay lii mooy buntub laabug ndox wa taw bi ak malaan wala buq xati ak pàkk wa maag la nga xam ne yu gis bi dana doy dina libaas ci koddaay fi salaati ci julli day wax ci bunt bi man ndox moo laab ba nga mën koo jaamoo yàlla bëgg waxaale ba tey ni nga xam ne moom nga war a moytoo julliwaale sobe ci sa coobare nga xam ne bala ngaa julli war ngaa seetlu ne saw yaram ak say yére ak fa ngay taxaw di julli say cër di ko laal dara amu ca sobe ba tey boo takkee montar wala nga sol ay kawas wala yore musuwaar mbaa leneen tam yooyu yëpp dañ koy boole ci atteb ya war a set wecc bañ am dara ci sobe nga xam ne moo yére yi nga sol ñooye moo dana waxaali ba tey nag li nga xam ne mooy doy ci booy julli nga sol ko nga xam ne bu ko yéesee rek moom du doy faaw rek war ngaa solu sàng sa awra bu dee góoroo bu dee jigéen dana leeral nag kenn ku ci nekk la koy doy ci koddaay bu dee julli nga xam lu ko yées moom du doy wal musalli aji julli ja yu naa ji dana déyaaleeg rabbahu boromam fa alayhi kon war na ko ay yota ëxëba mu waaj li zalika ngir loolee bi lu doy ci am jàpp aw bi tuxru wala ci cangaay in wajaba ndem war na alayhi ci moom ak tuxuru cangaay la nee na kuy bëgg a julli day bëgg a déwanteeg boroomam kon na war naa waaj waajtaay wa nga xam ne moo ci yell te loolu mooy bu ko jàpp waree mu jàpp bu ko sangu farata waree mu sangu bu ko tiim waree nag mu door a tiim waaye kon dana nekk daalika loolee dinaa in ci am ndox taahirin mu di aji laab xayri mashoobin moom du lu ñu jar jar mooy jaxase dina jaasatin ci sobe wala dinaa in du caay gënu ci am ndox xadd taxa yara moom soppiku na law na xoo meloom li see in ngir dara xaalataxoo loolu jaxasoonte naag moom xaalataxoo ñu see in ci dara najisin luy aji sobewu aw taahirin wala aji laab maanaam waxi nam day xaw a gudd léeg-léeg waaye yomb naa gàttal ngay wax ne rek ndox mi mën a jaamoo yàlla daal moom moo xam daa bëgg a jàpp moo xam daa bëgg a sangu farata mooy ndox moo xam ne meloo mbaa cafka ga mbaa xet ga dara soppikuwu ci loo xam ne mëneesoon na koo moytu lépp li mën a moytu nga xam ne ndox amuñ jote rek bu soppee ndox ma ci melo mbaa couleur mbaa caf ko dana ko yàq ci wàllu jaamu yàlla daañu leeral nag bu fekkee loola daa doon lu sobewu am dafa nekk lu laab ndax mën naa nekk lu sobewu moom loolee ko soppi mën naa nekk lu laab illaa moom dara la nga xam ne rawatat soppi na law naxoo meloon wa al ardu suuf sa allati sa nga xam ne xóo moom ndox ma bi xaa nekk na ca moom min sabaxatin ci suufus xorom koy wax ceeñ aw xam aj wala ban aw nax wi xima wala lu mel ne ñoom ñaar lu may nag la soppi ndox ma muy su ko woon a moytu yàllaa ko boole ndox mel ne suuf sa nga xam ne ca la ndox may génne moo ñuul kukk ndox ma daal di ñuul mbaa ma am xorom ndox ma saf xorom mbaa moo xong cooy nit ki bu dee ban ba moo xong cooy mbaa moo ñuul kukk tax ndox mu mel noonu yëpp du ca wàññi dara tax loolu ndox mi bu walee fa muy romb ci suuf si muy gàncax muy leneen mu soppi koy du ca wàññi dara loolu mënu su ko moytu du wàññi dara kon wa maa u samaay ndoxum asamaan wa maa ul oyooni ak ndoxum bëti ndox yi mooy siyaan yi wa maa ul aabaari ak ndoxum teen yi wa maa ul baxari ak ndoxum géej tayyibun aji tey la taahirun aji laab la mutahirun te aji laabal la lin najaasaati ñeel sobe ya ndox moom nee na moo xam daa bàyyi ko ci asamaan moo xam daa bàyyi ko ci siyaan yi moo xam daa bàyyi ko ci teen yi moo xam daa bàyyi ko ci géej mbaa daa bàyyi ko ci ab déeg yëpp ñoo ci yemoo moom daal bu fekkee leneen soppiwu ko liñ mënta moytu leneen soppiwu ko liñ mënta moytu ba nga mën ko caa xàmmee daal moom xamal ne kon laab na te mën naa laabal mooy mën nga caa jàpp mën nga caa sangu farata mën nga koo yóbbu wanag mën nga koo dindee sobe ci sa yaram mbaa sobe si nekk ci sa yére loolu mooy mën a laabal wamaa loo xam ne nag xoyir a soppeef na law na xoo meloom wa bi shayin ci dara taahira lu di aj laab lu di aj laab xaal la lu wàcc na fii ci moom fa dalikal maaw moomee ndox taahirun aji laab la xayru mu tahirin waaye nag du aji laabal fii wu dooyin ci am jàpp aw tuxrin wala cangaay aw zawali najaasetin wala dindi sobe yéen bu fekkee nag ndox ma daa soppiku ci melo mbaa caf ka mbaa xet ñoo ci yemoo te la ko soppi nekk lu laab mel ne café dem ca mbaa suukar mbaa ataaya mbaa diw ak mel noonu su boobaa laab na ci kaw boo ko bëggee naan mbaa togge mbaa sangoo sangum toilette yépp mën na ko waaye nag mënta jaamu yàlla doo ca mën a jàpp doo ca mën a sangu farata doo ko mën dindee sobe ci sa yaram mbaa ci sa yére wala boo ko dindee baagal da nga koy def da ngay awalewaat ca kaw ndox mel ne mi ngay jàppee. wala loo xam ne xawiratu soppi na ko am na jaasatu sobe falay sa bi taahirum du aji laab wala mu taahirum tey du aji laabal waaw daa wax ne bu fekkee la soppi ndox ba nga mën koo xàmmee sobe la ni ki saw mu aay moo ci dem daa am saw mu aay it moo tax ma wax loolu wala deret wala sàngara xeet sobe yooyu bu fekkee moo soppi ndox ba nga mën koo xàmmee ci couleur mbaa caf ko mbaa xeet kon ndox ma yàqule ci wàll yépp tur rek moo ca des xanaa rek mën nga koo wëggi ak jur de mbaa nga suuxate ko loo bëgg a suuxat waaye doomi aadama moom du ko mën a jëfandikoo kenn wet du ci wàllu jaamu yàlla du ci wàllu aada wa xalilu maay aji néewi ndox yu najjisuhu dana ko sobeel xalilu najaasit aji néewi sobe wa in lam tuxayyiruhu ak doon te soppiwu ko wax yooyu bu ko jàpp dane ndox mu néew ndox mu néew mooy mu yem ci jàpp rek mbaa sangu farata loolu mooy néewaay wa tuut sobe dem ca loo xam ne gis nga ko gis rek moo tax nga xam dem na ci waaye mu xamewoo ko ci genn wet du ci couleur du caf ko du ci xet kooku daa wax ne yàqu na waaye jàppal ne yàquwut wax ji gën a wóor mooy su fekkee am nga meneen rek ñu sib ko waaye su fekkee amoo meneen kenn sibu ko bu doon ndox mu bari nag moom lu mel noonu dem cee ci sobe nga xam ne kenn mënu ko caa xàmmee kenn du ko sibal sax néew gi mu wax rek mooy indi sib ko sax moom waaye bu fekkoon ndox mu bari la woon moom du am sax sib googu wa qillatul maa'i néew ndox ma ma ihkaamil xasli ànd ak xereñ raxas ga sunnatu sunna la wa sarafu ëppal ga min fu ca ndox ma xuluwun teengal diine la wa bidaatun te bidaa la dañoo taamu na boo dee jàppoo boo dee sangoo ci yem ndox mi ngay ndox mi ngay def rek lu yem te bañ ko ëppal doon sax da ngay tiim géej boo tiimoon géej di ci jëfandiku ci jàpp mbaa sangu yi rek bu xool ndox mu bari mi da ngay def lu yem rek loo xam ne jaadu na ndegam nit ñi dañoo wute ñenn ñi dañoo tuuti ñenn ñi rëy ñenn ñi seen yaram nooy ñenn ñi ñagas kon dañuy bàyyi kenn ku nekk rek mu seet la yelloo moom mu def ko te yem ci te bañ a ëppal ëppal ndox mi ni mu ko waxee moom teengal diine la maanaam wees rek fa mu war a yem biddaa la itam mooy sos ci lu bokkut waxaat tawat ba ay jàppoon na. rasulullah yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bi muddin ci mudd wax wute moom was nu ritalin mandaxim ritalu la wa tulusin akub ceer wa tataf rite mu sangoo woon bi saaxin ci benn saa wax wute moom saa arbaxatu am daa di ñeenti mudd la bi mudd yi ci mudd yonante bi allah yàlla na doole nekk ci moom assalaatu dooli teral wasalaamu ak dooli woolu lu la wax ne la ndox mi di ko def lu yem rek te bañ ko ëppal mooy sunna da ngay si wax misaal ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàppe woon lu toll ne mudd man nga daal ci misaal men jàppe woon lu toll ne benn walaat ndax dañuy mudd war naa mat benn ritlu ak ceeru ritlu fekk ritlu day nattukaay dañ koy fidee sax liibar léeg-léeg moom ritlu waaye am nattukaay daal la moom mu ne mudd nag war naa tolloog benn ritlu ak ceer waaye mën nga ne rek yonante bi jàppoon na ci misaal lu toll ni ab walaat sangoo woon lu toll ni saa ba tey mën nga ne sangoo woon lu toll ni ñaari litre ci misaal te ci misaal rek ne ndox mi ëpp na ëppal def lu yom rek a baax wa tahaaratul buqxati laa bu pàkk li salaati ñel julli waajibat aji war la wa kasaalika naka noonee tahaaratu taw bi laabug malaan ma faqiila waxees na ne inna daalika naka loolee fii maa ci ñoom ñaar waajibul aji war la wu joobal faraidi kem waruk farata ya waqiila waxees na ne wu jooba sunani kem waruk sunna ya al mu akkadati ya di ñu feddale maanaam ñàkk julliwaale suba ci sa coobare dañ caa wóote daa am ñu wax ne ab sart la ci wérug julli gi nga bañ a julliwaale sobe dega moom fàttewoo ko te mën ngaa tàggoog moom xam ne ci kaw ñooñu moom bu fekkee ne fàttewoo ko te mën ngaa tàggoog moom boo julliwaale sobe rek julli ko du baax danga koy baamu faawu faawu mel ni julliwoo am ñu wax ne déedéet ñàkk kaa julliwaale sobe sunna rek la bu fekkoon da nga koo tey julliwaale sobe te mën a tàggoog moom it du tee julli ko baax na nga bàyyi sunna rek du tee nag ñoom ñëpp ñoo lay digal baamu ñu wax ne ñàkk kaa julliwaale sobe mënta ñàkk ñoom na ngay baamu faaw faaw faaw ñu wax ne itam sunna la it ñu lay digal nga baamu faaw la ñu wutee nag mooy ñu wax ne sunna la moom seenu baamu faaw sopp ko rek moom moo sardi way waaye soo baamu dugatee baax léegi nag koo xam daa juum fàtte rek ba julliwaale sobe ba sëlmal moom julli nga baax na daañu sopp rek mu baamu ko ci waxtu wa ne nga mën a tàggoo sobe sa te baamu ko koo xam lotta tax itam maanaam da ko tëlee mënutoon a tàggoo mbaa waxtu waa xat kooku moom baax na day bàyyi noonu rek am na ñu wax ne bu fekkee dafa tële woon a tàgg tàggoog sobe si gannaaw ba nag mën a tàggoog moom kon daañu sopp ba tey mu baamu ci waxtu wa daa am ñu yemale ki fàtte woon ak ki nga xam ne dafa tële woon gannaaw ba mu man wayun xa def na tere xani salaati walis julli fii ma aatinil ibili ci yesukaay gëléem ya gëléem yi xam nga seenum saw laab na seen neefara laab na kon bërëb yi ñu yës bu ñu aayee julli ci duñ xam lu tax ñu aaye nu ko moo tax nag kon sim nañu ngay fekk fu gëleem yesoon nga di fa julli ndax topp aaye boobule ndax xamuñu kat lu tax ñu aaye nu ko moom boo fa laloon lu laab itam du tee rek ñu aaye la julli ga sib ko ndax dañu ko aaye te xamuñu lu tax wa ma xajjati tarix ak digg aw yoon fekk digg aw yoon nga di ci julli moom dañ koy aaye ci kaw rek ñàkk caa wóolu sobe defe ne da nga aw yoon la xëy na mu am sobe waaye bu la wóoree digg yoon yi la waaye sobe wut man nga caa julli wa zahri baytullahi ak kaw néeg yàlla ba alxaraam bari buñu ormaal maanaam yéeg ba ca kaw kaaba nga jullee ci kaw kooku moom daa araam aay googu aay araamal la ndax dañ doon digal ñu jublu jëmmi kaaba gi boo yéegee ba ci kaw ngay jullee ci kaw terrasse maag terrasse kaaba gi day mel ne kon jubluwoo ka jubluwoo kaaba gi wal xammaami akub sangukaay bërëb bu ñu sangoo dañuy jàpp ne moom du set waaye bu la waroon ne dañu fa daan sangu waaye fii mu nekk set na ni ki am na saas saas ba xel na ba xam nga ne moom sooy amatu fay mu daal dagan nga julli fa moom moo tax mu teg ci xay sulaa yoqanu foofu xam ne deful wóolu min ci moom bi taxaaratin ci laab ñàkk wóolu laab rek moo tax ñuy aaye sangukaay bi ak digg yoon yi wal masbalati akub santaare dañuy jàpp ne santaare fu ñu tur balit moom wërta set waaye bu wóor leen daanañ ko fi tóor waaye fii mu nekk nii moom set na ba taq na waaye da nga faa lal lu tal te laab ba tey loolu kon baax na wala majj siréti akub rendikaay dañ jàpp ne rendikaay moom wërta laab ndax deret sobe la kon nag béréb buñu daa rendee bu fekkee wóolu woo ci ak set ñu aaye nga jullee fa doo fa sañ a jullee waaye nag bu fekkee wóolu nga ci ak set moom mën nga faa jullee wa maqbalatil mushrikiina ak armeel yi yéefar yi daa tudd armeel yi yéefari waaye nee nañu bu fekkee ne gisoo fa benn sobe bu fa nekk ca armeel ya kon dañuy sib rek nga jullee fa ndax li ibnu Habib ne ña fa nekk dañ leen di dugal ci sawara fu mel noonu ëpp naa jullee waaye wax ji gën a wóor moom moo xam armeel jullit la moo xam armeel yéefar la bu fekkee wóolu nañ ca ak seet rek moom mënees dafaa julli te du tee mu baax jooju wax moom moo gën a wóor wakkanaa isib ak seeni jaamukaay ñu ngi wax ay église béréb yi nga xam ne ay jaamukaay yi ay yéefar la ba tey dañuy bañ ko fa julli karihal imaamu malik asalaata fiha li najasatiha min aqdamihim ay ashanu fiha dalik la annaha muxaqaqatun wa illa kaanat isalaatu fiha xaraaman mahabatulaaniha dane malik da doon bañ dafa sidoon ku jullee ci jaamukaay yëfar yooyu leen ndax li ci ëpp seen dàll yooyu ñu fay dëggee da koy sobeel doonte wóorul itam moom loolaa ci ëpp kon nag sim na ko ne sax bu ñu wóoroon ne sobee sañ wax am na fa moom sobe sañ soog bu ñu wóor ne amoon na moom day araam nga jullee foofu noppi nag julli ko du baax boole ci waaye nag wal karaahatu xaysu salla fiiha ixtiyaaran laa inni doctora li dalika wa illa fala karaahata la farqa bayna daarisatin aw aamiratin ñu ne ba ñu sib nag mu jullee fa cooyee jamono mooy bu ko coobare woo waaye bu fekkee lora ko waral moom des ko sib du ci seet tam nag ndax jaamukaay boobee dafa ràpp ba kenn ñëwatu fa di fa jaamu wala mu ngi dund ba tey am nañu fa ñëw di fa jaamu wala am nañu ci soxla wa aqallu ma gën jaa ñëwi la nga xam ne yu sal yi dana julli fii ci moom arrajulu góor minal libaasi ci koddaay tawbun mooy malaan saa tirun mu di aji suturaal min dina in ci boobu aw ridaayin wala làmbaay wa dirhu baatu dirhu boobu nag alxamiisu moo di mbubb nee na góor moom bu dee julli na fexe ba sàng awraam rek te mooy tàmbalee jumbax ba ci biti woom bu sàngee loolu rek jaanam wàcc na te it mu sàngi ko lu tal loo xam ne ku ne jàkk doo daal di séen awra ji awra ji ci biir waaw loolu moom bu ko defee du baax de sax bu fekkee dafa xaw a xat ba nat ay cëram moom loolu sib nañ kese yem ci waaye nag bu yaraaxee yaraax boo xam daa ëpp nga xam ne ku ne jàkk daal di séen awra ja loolu moom kon du ak sàng awra te aajo mu sàngi ko lu tal loo xam ne kenn du ne jàkkari daal di séen awra ja loolu ko dafa def ni sib nag ay yusalliya mu jullee bi faw bi ak malaan lay saxala ak taafi yi moom déet mu nekk ci ay mbaggam min hucci moom cheyun dara nee nag mu jullee yére yoo xam ne boo ko dee seet kaw mbagg ya dara du ko muuf ñi ki tey mu sol tubay rek noonu ñedd ko ba sës jumbox bi rek bu ëmbaale ko am bëti woom yëpp loolu bu ko defee bu góor defee jaanu wàcc na ndax loolu rek moo doon awraam waaye taaw buñ ko dañoo bëgg mu waaj waajtaay wu njëkk xam ne day bëgg a taxaw ci kanam boroomam tax mu sàmm teggin nag lu néew néew yére yi muy sol na am lu nekk ci kaw mbagg ya rafetal cool ga daal ba loolu tàmm nañ ko bu baax fa in faala ndéem def na ko it nag la mu wax yi du ko tax a baamu mu ngi noonu bu fekkoon ne daa jullee loo xam ne nii kaw mbagg ya dara nekku ca daa sàng rek jumbax ba ci bëti woom bàyyi koy du tax baa mu war ko wa aqallu ma gën jaa néew la nga xam ne yu gisiw dana doy almarata jigéen minal libaas ci koddaay fi salaati julli ak diron mooy mbubu alxasiifu muy aji tal assaabiqu muy aji jot allasi ma nga xam ne yastur dana suturaal joxoor a xadamay xaa bitti wiyaari ndëgoom ya wa ximaarun aku muuraay tataqannahu mu doona muuroo bi ci moom ñu ne jigéen moom dañuy wax ne yaramam yépp awra la ba mu des kanam geeg téng yi nga xam ne kon bu dee julli war naa sol lu tal lu jot sëkk ba muur kaw ndëgg ya bu jël muuraay itam muure ko bopp baag la ko war lépp nga xam ne daal kanam gi rek lay sañ a feeñal ak teng yi watu baashiru dana jonjonteeg bi ka fay xaa ci yaari tengam ya al arda suuf sa ci sujjóor ci sujjóor ba mis la rajuli kem góor nee nañu lee mu wax ne day sol lu jot bay muur kaw ndëgg ya dangay xamal ne la teng yi moom mëtta muuraale duñ ko wax ne ko sol ay gant wala yére yi nga sol na nga koy laxaa ci say teng nee na liy sàkkoo ci góor rek bu sëggee bay sujjóot jël loxo ya teg ko fa suuf mu tolloog nopp yi mbaa mu jege ko maanaam jigéen daal jërul mi muur ay tengam mbaa dara day teg teng yi rek bu sëggee di sujjóot mu tolloog nopp ya mbaa mu jege ko ni ko góor di defee baabu sifatil wudoo lii mooy buntub meloo njàpp wa masnoonihi ak lañu sunaalam wa mafroodihi ak lañu farataalam wa zikril istinjaay ak tudd tàncu wal istijmaari ak dawandiko tàncu waxin wolof la waaye dañ cee jublu ku dem ci wana wa sobe sa génnoon mu raxase ko ndox te bañ koo dindee leneen lu bokkut a ndox loolu moo tudd tàncu istijmaar dañ koy firi dawandiko rek waaye mooy ba mu demee ci wana wa sobe sa génnoon mu dindee ko leneen lu bokkut a ndox di ko dindee ko bant ba aw doon ji suuf ba morsob sagar im demee noonu yooyu yaatu ko bëgg waxaale ci biir ba noppi waxaale itam nañuy jàppe ak yan mooy sunay njàpp ak yan mooy faratay njàpp waaye taxuñ nag sax mu wàññi la sunay njàpp na mu ko war a wàññee ba farat yi na mu ko war a wàññee da ciy wax rek waxinu gàtt gàtt woo xam ne sax ak lëntal lay gën a joxe ci fekkutoon nga jàng ko feneen walay sal istinjaaw dee tàncu mim maa muy loo xam ne yejj bu dana war añ yuusala bu dee fi jokk bi ci moom alwudoo njàpp laa fii sunanil wudoo yi dir mi bokk ci sunay njàpp ya wala fii faraidihi du caageenu ci farataam waxoo moom daal min baabi ijaabi zawalin najaasati mi ngi bokk ci buntu waral dindee sobe bi ci moom aw bil istijmaari wala ci dawandiku li allah yusalliya ngir mu bañ a jullee li allah yusalliya ngir mu bañ a jullee biha ak sobe fii jësadihi ci yaram wax nee na dem ci wana wa raxas sobe si moom mbaa mu dem ci wana wa fomp sobe si jotuwut ak jàpp bi dara duñu wax ne faaw boo ko defee itam da ngaa war a jàpp susalee ci ñu war a susaloo déedéet moom koy day loo xam ne rek ndegam sa yësta julliwaale sobe boo ko defee rek sobe si dañ nga bañ koo julliwaale loolu rek lay jariñ waaye néew ñu daa bokk si suñuy jàpp mbaa ci farataam mbaa dañu war dañu war a susaloo nga xam ne booy génn daal di war a jàpp fi saasa xanaa ndax bu dee waxtu waxat rek nga xam ne kon da ngaa génn ci wana wa tombe la des ci waxtu wa waaj am ci ràkk rek des kooku de moom xatu waxtu waa ko waral wayu ji siw dana doy fi'luhu defam nga te xëyri niyat ci lu yéene moom na nee na mës lu yéene maanaam soxlawul yéene moom boo dindee sobes rek baax na wa kazalika naka noonu xaslu saw bi raxas malaan ma ak najisi ma ji sobewu ba tey aw yaramam bu defoon sobe mbaa ay yéreem waaye sobe ko taq rek noonu bu ko raxasee rek na nga ko war raxasee mu doy ñàkk a ànd ak yéene du ci doon dara mel ne tey bu fekkoon ay yéreem daa am sobe kenn ñëw di fóot rek fóotaalil ko ko daal koy seetlee mbaa bu fóoti ko ndox mañ ko war a fóoti rek xamutoon ni sax moom mi koy fóotaale moom sobe nga ci woon du ci wàññi dara xam ne kon ñàkk ay yéene moom du ci wàññi dara wa sifatul istinjaa yi melaw tàncu ga añ yabda mooy mu tàmbali baax da xasli yadihi ci gannaaw raxas loxoom ba fa yaxsila te muy raxas maxrajal bawli génnukaayu saw ma nee na nag melaw yi gën ci tàncu mooy ndegam moom yaari sobe la say boobu njëkkee sobe ci gën woyof muy saw mi njëkk raxas fa nga xam ne fa la saw ma génne doora jàll ci buntu suuf ba bala moo tàmbali raxas buntu saw ma loxo bi muy loxo càmmoñ bi nga xam ne moom la war a raxase da koy raxas xaat te dara taqagu ci waaw kon jàppal ne melaw gën ci tànc mooy loxo càmmoñam bii nga xam ne mooy bëgg a dem ci sobe si da koy raxas xaat te dara taqagu ci li muy jëriñ nag mooy gannaaw bu demee ci sobe si du génn du xeeñ loolu la jëriñ nee nañu su ko defee nag bu njëkkee raxas buntu sawukaay bi nag ndegam ñaari sobe leen te saw mi bu gën a woyof kon na njëkkee moomu lu may nag de yàlla da ko bindee muy koo xam ne su laalee bunt suufam rek faaw saw génne ca bunt saw ma su boobaa kon say boobu njëkkee buntu suuf ba door a ñëw ci buntu saw mi waaye bu dul loolu rek moom njëkkee saw mi la ñu gën a taamu ci njëkkee buntu suuf ba su ma yem sax topp mu fopp maa la nga xam ne fi maxar ji nekk na ci génnukaay ba minal aza ci sobe bi madarin ci aw doon ji suuf aw xëyri yi baa lu dul moom aw biyadi yi wala ci loxoom bokk su ma yaxut ko xaa toog mu wokk loxo ba min ardu ci suuf ba yax si la xaa dem koy raxas bu dee ci àll ba daal moom dañoo taam mu boole ndox ak doon ci suuf wala ndox ak bant yooyu mooy day njëkk a wàññi taq-taq ba ci bunt suuf ba te wàññee ko aw doon ci suuf mbaa aw doj mbaa sax mu wàññee ko loxoom su ko wàññee loxoom nag moom day wokk loxo ba ci suuf raxas ko door ko delluwaat ci bunt suuf ba di raxas waaye loolu nag bu doon fii ci kër yi moom ni kër yi baaxoo mel ci duus yi moom bu ma yóbbaale ay doj bàyyi bant ne daa koy njëkk a wàññee taq-taq bi xam nga benn bu ko wàññee ba noppi mu def ko ci kanam duus ba te kon da koy sakk bu ko bàyyee foofu ci wana wa itam mu saltil wana wa bu doon ci àll ba daal lay mën lii moom njëkk a somp nag foofu ci doon ji suuf ba aw doj ba leneen nag door ko raxas li wax nag moom mooy njëkk ko wàññee loxo bi moom mënees na ko mooy jekki-jekki rek loxo bi càmmoñ bi daal koy somp bundu suuf ba waaye lam ci teg nag mooy kon day fomp loxo boobu da koy wokk noonu ci suuf foofu itam xam nga bu dee wane bu ko ci wokkee te taxasaatu ko dana taqal foofa. te nag dañoo bu fekkee loxoom la ko njëkk a wàññee moom loxoom boobu da koy wokk ci suuf raxas ko door a ko delluwaat nag ci bunt suuf ba di raxas di wéy nag. su ma yestan jiyee topp dana tànc ba bil maay ca ndox ma wayu waa si la te muy jokkale sàbbahoo sotti ndox ma wa yestarxee te muy yolomlu xalilan tuuti wayu jida te muy rafetal xarka daalik rag loolee bi yadihi ci loxoom xataa yeta nadzafa ba muy set ndegam nee na wàññi na bunt suuf bi nag ba mu wàññi ko nag raxas rek moo ci des kon day daal di sësali rek di raxas rek di raxas te itam na yolom lu yolom lu mooy na bàyyi bunt suuf bu mu wàcc ndax nee nañu daa am ay daa am ay ras-ras yoo xam ne su ko bàyyee mu banku day bankuwaale sobe waaye su ko bàyyee mu wàcc rek moom bunt suuf bi na ko yàlla bindee kon ras-ras yooyee dana mën a set bu baax bu ko defee nag muy bomb di bomb rek ba moom muy set wala si xale yi di di ko war nag xaslu ma raxas la nga xam ne batana biiri na minal maxrajay ni ci ñaari génnukaay ya nee na nag duñ ko wax ne ko faaw nga luqar ci li ci biir génne ko ba lu demee noonu déedéet moom li génn ci bitti rek ab atte ñu war koo raxas ba mu set waaye loo xam ne génnul rek moom duñ ko wax ne ko faaw nga luqar ci ko mu génn daa am sax ñuy aaye jël baaraam di ko dugal ci buntu suuf bi te bu dee buntu sawukaay bi sax bu baaraam bi xaju ci xanaa bant koy mën a ruqal ci waaye yu mel noonu daal yëpp dañ koy aaya lu génn am na atte lu génnu rek amul atte wala yustan jaa deeful tàncu min rihin ci aw gelawal maanaam ngelaw li génn bàyyi ko ci buntu suuf nga xam ne bu génnee dara du fa taq kon du aajo war a xas buntu suuf ba ngir loola loola sax jéggi dayo ak ëppal diina rek la maanaam bu fekkee buntu suuf bi ngelaw di caa génne itam du aajo bu koy raxas ngir loola ndax xam ngelawul kese moom du bàyyi benn taq-taq moo tax wa man istajmara ku dawandikoo bi salaasati ahjaarin cet doj yaxrujee dana génn aaxiruhunna aji mujj seen naqiyan mbir mu ngi aji set aji sa ahoo mu doy ko wal maa waaye nag ndox atharu moo gën a laab wa atyebu te moo gën a teey wa ahabu te moo gën a sopp ilal xulamaay jëm ci way xam ñaa neen dawandiku mooy ba mu demee ci wanawa mu somp sobe sa ci bant mbaa aw doj mbaa doon ji suñu demee noonu kooku ne nee na dañ caa sopp mu tóol moo tax mu tudd yett yi lim ba tóol dañ ko caa sopp nga xam ne kon bu ko defee yett doj waa ñetti bant te ba ci mujj bu ko xoolee mu set wecc li muy tekki mooy fa mu doon fomp set na waaye teewul nag ndox lañ gën a taamoo maanaam bu dee sawum góor daal moom te tasaaroo wut bu ko neexee ndox nekk si nag mu bàyyi ko fomp ko buntu suuf itam mi góor mi jigéen ñoo ci yemoo bu fekkee la ca génne tasaaroo wut dafa yem ca buntu ba rek ku mu neex ci ñoom ñaar nga fomp ko te bañ ko raxas sawum jigéen nag moom faaw dañ koy raxas ndax nee nañ faaw day tasaaroo te it ko takk ne mi góor muy jigéen bu fekkee fa sobe sa génne tasaaroo na bu baax a baax faaw dañ koy raxas rek waaye fomp kese du ca doy buñ ko mënta raxas nag say boo ñu bàyyi rek ba am ndox buñu amee ndox dool koo raxas te bu julli waree ñu julli ndax ñàkk gaa laab moom du yàq julli ga tegam ngànt la ba tey nag bu fekkee def na yett te taxul mu setit na jàll rek moom yett yem wax da ko wax rek ngi wane ne sopp nañ tool ga waaye bu fompee yett yoon setutit na jàll rek moom wa man lam yaxruj koo xam ne génnut minhu ci moom bawlun saw wala xaitun du caageenu xayta wa tawaddaa te mën na ma jàpp li xadasin ngir am toj aw naw min wala ay nelaw aw li xayri zalik wala ngir ludul loolee mim maaca la nga xam ne yóoru ci bu dana waral alwudoo a njàpp fala budda mënta ñàkk di wax ci wolof nag fala budda du jaas min xasli yadayhi ci raxas yaari loxoom ya qabla qabla du xooli ximaa njëkk si dugg fi inaay ca ndab la nee na bu fekkee da ngaa bëgg a jàpp te fekk ndab la nekk ndab looy as kon dañoo bëgg bala ngaa tàmbalee as nga dëngal ndab li raxas say loxo ñetti yoon ba ci tikku jare yi door a tàmbalee as nga xam ne bu fekkee bàyyi ko ci li war a sobi mel ne yow li tax ngay jàpp da nga doon nelaw rek nelaw yu diis wala nga laal fenn foo xam ne ku ko laal am jàpp ma toj waaye daal bàyyi ko ci wanawa ñu naa saw du laa tax mbaa xëyta koy dutee rek moom bu fekkee ndab la ngay jàpp daa ubbiku daal dañoo bëgg bala ngaa tàmbalee as nga dëngal ndab li raxas loxo yi ñetti yoon door a tàmbalee as loolu nag bu fekkee ne defoo ko te fekk say loxo taq moom boo jekkee-jekkee as rek bu ndox ma soppi ko moom ndox ñàkk nga ko bu fekkee ndox ma soppi ko nag kon na ngaa wàcc ndigal rek waaye dara nekku ca wa min sunnati lu dooy bokk na ci sunu si jàpp rasul yaday ni raxas yaari loxo ya qabla qabla doxooli ximaa njëkk seenu dugg mooy seenu tàbbi fi dinaay ca ndab la daa bokk ci sunuy njàpp bu fekkee ndab la ngay jàppi daa nekk ndab lu ubbi nga nar a as lu jekki-jekki tàmbalee as loxo yi set set na nga dëngal ndab li raxas loxo yi ñetti yoon door a tàmbalee as bu dee nag ndab loo xam ne moom neexu si dëngal mel ne biñuwaar bu fees wala ngay jàppee ci lu mel dex wala géej ko da ngay jékki-jékki as rek moom ndax loolu ñu dëngal nekku fa waaye nag bu dee biñu baar nga itam kat buñ nee jërta dëngal bu say loxo taqee nga jékki-jékki def ko ca mu soppi ko it nga daal ñàkk mooma ndox ba tey rek wal mad madatu kalaxndiku wal istinshaaxu ak saraxndiku wal istinzaaru ak fiiru wa mashul udunayni ak masaañaari noppi ne sunnatun sunna la wa baaq yi aji de si njàpp mi faridatun farata la xam nga moom daa wax dana wax ci buntu bi sunnay njàpp ak faratay njàpp waaye gis nga ni dong la ko waxee te yokk am lent rek la ndax moom daa jékki-jékki ne dalaxndiku sunna la saraxndiku sunna la fiiru sunna la masaa noppi sunna la muy ñeent kese mu daldi ne lu bokkut ak loolu farata la te xam nga ne sunna yi des na yeneen ñeent mu juróom-ñett farata yi jotu ci wàññi benn daa jékki-jékki rek ne li des farata la te bu weesoo farata yi am nañ gëneel boole ci waaye nagam jàng nañ ko ci yeneen téere nag xëy na kon moomul lant du sonne fa man xaama ku jóg ilaa wudu in jëm ci am njàpp min naw min tukkee ci ay nelaw aw xëyri yi mbaa lu dul moom faqad qaala wax na baax doon xulamaa yi lenn ci way xam ñi ne yëpp daw day tàmbali fa yu sammi te muy tudd allah yàlla wala mu yarahu waaye nag gisu ko baaduhum lenn ci ñoom minal amri mu bokk ci digle bil maarofi ci lu baax wala nga ne ci njekk wax ni woo daa gudd rek waaye li mu bëgg wax mooy dañoo wute ci booy tàmbalee jàpp ndax da nga wax bisimilahi am doo ko wax am ñu ne warugar la faaw nga war koo wax ñooñu dañoo àgg sax ne moom boo doon jàpp ci wanag bala ngaa dugg ci wanag ngay wax bisimilahi te yéene ja jàpp ma nga jëm ndax boo duggee ci biir doo ko mën a wax ñenn ñi ne déedéet diis ko wax wax bi gën a wër ci yoon maal nag moom te nga jàng ko ci yenn téere yi ci des mooy ak sopp mooy sopp nañu te ngëneel la booy tàmbalee jàpp nga wax bisimilahi loolu rek mooy àtte bi foofu wa kaw nag inaay nekku ndab la laa yamini yi ci ndeyjooram am kanu moo gën a jàppandi la xooñeel ko fii tanaawuli yi ci yóotoom ga dañoo sopp bu fekkee da ngay jàppi ndab lu ubbi